BX6 parfum multi isage BX6 parfum bu de jamono bàyyi Canada vous offre un mouton en quartier ndax xam ngeen ni Sénégal am na ñoo xam ni fu ñu dem ñu wër leen ndax xam ngeen lu tax ñooñu dañoo am secret secret bi mooy Provit BX6 waaw BX6 mooy parfum bi yëngal jamono xet gu neex boo xam ni ku mu romb nga bekk ku mu romb nga ne li du mu doon parfum BX6 mi ngi bàyyeekoo Canada formule am dafa révolutionnaire nekk multi-usage adapté à toutes les situations BX6 day jaar fépp fu mu jaar mu xeeñ BX6 parfum bi xew ci jamono BX6 ca bureau ba BX6 artiste booy dem marché boo tu ci bus bi ñëppay gëstu naan kan la parfum multi usage mën nga ko jëfëndiko pour sa yaram ti mën nga ko jëfëndiko pour chambre pour âge yépp la nak de 7 à 77 ans BX6 la nouvelle référence de la parfumerie BX6 waa kër Serigne Fallou ci marché HLM ñoko fi indi BX6 cantine numéro 5C Diano ak arrêt Tataane woo ci 77 513 69 61 wala 77 072 99 99 ci BX6 ah ça c'est trop bon. kon waaw waa du ah saw ku la jéeri borom nag ak meew yaa ngi noonu waaw moom la iya, ba la kilo de mata na lii ba borom xar yi kii de ku mu joxul nag ci mim réew dégg nga maam doo ngénte ngénte taaw sàkkantu ma laak caat déggoo li de kii nee naa la ku mu joxul xar doo tabaski xeetu baax jëfal ndànk def leen ndànk fan ngeen ma xamee man ah ku xamul amul nag yow itam kaaw tamit nag yow mi ci yow mi ci xaalis du bari xeetu baax baax yi mi def bari macha allah chapala sama xaalis xii na yow dañ lay wër ba guddi jot ñu dem tëddi na kii ku ko xamul xolal xale jigéen nag tere loo ci xamul nag moom la xale jigéen di di wër hmm. borom teraangaa gi nii nag kii mooy kaaw te nag loo ci xamul nag lenn rek laa lay xamal man dama laa bëgg lool kaaw def la sama xol bii ah! xolal dama laa bëgg bu làqati sama lañ ci waay kii bu la bëggee benn damaa jël sans di ko doublé eh. déggoo ma de def leen ndànk wuy ma fii yow su ma la amee waaw dinaa la ñol ñol dila la pong pong di ping pong di la tël doom day mag la doom day sama bëgg moo raw sa bëgg kaaw leen lu tuuti rek laa lay xamante bariwul nee naa la ma damaa jonga ma ba yeneen day mi naji koy sama appartement laa jël xoolal ah. doom jooyul jëkkër commandé wul ku ma tooñ may la jégal naa la xam naa ne yow su ma la amee dina neex léegi def leen ndànk ma xam man yéen yéen a ngi may carax-carax yéen a ngi may parax-parax dama bëgg a xam yéen da ngeen ne ngeen premièrement xam ngeen ma deuxièmement mooy da ngeen maa aimé lal mo len surum le si man ba ngeen ba mu amee leen ma. xanaa sa xeetu bax bax rek. ba hmm. ba li ma gën a surum la jaara. <laughs> lii jékki si ay bobu nak bobu nak xam nga lan momay daanel xar sanem bi fi laa la def tangor bi nga xamantene te maro la koy. lo tax nak ñumay wax man la kaw man la kaw bayal fi bu tubu joy fi bu dar jolo bi laay maa foor ma foor woon. waaw waaw alhamdulilah. nga ci jàmm rek. soxna si ba dekk bi yeeng ci jàmm. jàmm bu baax <laughs> wax dëgg yàlla alhamdulilah kontaan nañu trop nag soo gisee sax ma dëkkaat sama xel sax moo delluwaat ma ne waaw foo ma ñëw ndax tamit yaa jur ndaw si waaye kee bàyyam te am na yoo xam ne boo koy def faw nga yëgoo man nag Abu Bilal man du ma mën a wax sa bopp may kan. waaye réew mi xam nañ ma. ah déet. waaw yow sax da nga ku wax sa bopp. waaw ndax ana ana lay soxuwa. waaw araam nee na ku naan man la du moom. waaye yow lu waaye gàtt xam-xam dégg ba jolof maree naan. waaw waaw looloo fi indi tey robinet yii ñuy balancé ci kër yi. maamam moo njëkk a ball teen. mooy jolof. ca la tubaab bi xoolee xam nga tubaab day triché jaarale fa balancement yi moo indi kër yi day am robinet bëgguma tudd société. li ñu tax a jóg suñu jabar. moom la ñu soxla. Mm-hmm. Eh, xam naa ne yow moom loolu moom da nga ciy kontaan rek <laughs> am déet. Mm-hmm. Oustaz Oustaz Abou Bilal. waaw. dëgg la dëgg la waxtaanoon nañu fi jox la sama kàddu. sama kàddu man ah, eh, waaw gi ma moom waaw. waaye kàddu kër gi. waaw dafa am borom. <laughs> mooy yow. te borom gi nii toog. lii de mooy sar xolle bàyyi see topp néew nag. yàlla dafa dogal. yàlla kay dogalul yaay wax. kaddu kër gi genn genn kaddu la. waaw. te moom mii moo ko yore. kër gi genn kaddu la kan kan moo ko yor nga ne. sucre d'or mii toog kii ñuulalal sikki mam bii te xam ne yaayawul bi jaaw. waay yow. Ya. dal ngeen ci. ah bon léegi yéen. waaw. xam ngeen da ngeen wax loo xam ne kamoo ko sax tuuti ngeen ci kam. dëgg la. Hmm? Mhm. li mu bugg ngeen kam ku dégg. Mhm. mooy nag ku bugg lu baax. yéen xam naa ne dal ngeen ci lu baax. ndax fekk ngeen pul bi nga xamante ne ni man su sama yaram tàngee sax boo buggee ma may la baaraam. looloo gën a ndaw looloo gën a ndaw lu may def ñu ci yow rek. yow loo bokkul neex yow loo bokkul neexul kaaw. sa baay dafa mus a man nag kaaw sam mu dalee sam papa ba léegi musul tabaski. Hmm. yow sa baay dafa musu tabaski kii di ko wokk mooma xure hmm. musuñoo tabaski suñuy dëkkandoo hmm. ñooñu daan may ay ndawal musuñoo tabaski am maa la loolu sax boo ko amee tabaski la waaye ren hmm. na mel ni loolu jeex na ah, ah? ren am ngeen tabaski yoo xamante ne ni original tabaski <laughs> léegi nag jeex eh, eh, mu ne lan léegi xam ngeen lan la da ngeen di def xam nga nag mag laa demee bañ. ko foo dëkkee soo paree nga denc ko. wala gis nga bopp koñ bi. bopp koñ bi. Mhm. jox ko numéro ci nu mu gën a gaawee. soo tàddee gauche. Mhm. droite. ah. première maison. deuxième maison foofu laa dëkk. léegi defal ni. wat ni wat ni jëlal numéro bi defal numéro bi mu gaaw fot fot. jëlal numéro nga partagé ko nag maa yooyu ñoo ko bokk dégg nga ndax ñoo bokk jàngoro ji. waaw kay na ko jël man yéen ñaar man xam nga maa ngi wax. maa la koy jox naan ci pet. ñoo tudd yow naan ngeen tudd yéen. man mama. Mm. fii jaar jaar bu sa borom poroxaan. mama ak jaar jaar bu sa sama boole mama ak jaar rek damay dem àjjana. kër ga dafay gën a neex. waaw kaaw kontaan na ci yow nag man kaaw à plus. waaw kay nag fii de ñuy jaaree suñu. bay dawal xolal. man de range rek laa bëgg moom. ah yow kay borom kër gi yow kay borom kër gi yow nañuy déglu léegi. yow kay si comme que yaay borom kër gi ñun yow nañuy déglu. gis nga lii wax nii moom waaw. lol la yalla dogal kaddu gi maa ko nah, wad xadam waw xamal sa keur rek nak me bu xam sama keur li fi xew waw gis nga Fatima sama dom la. mako am juroom ñent ñeenti weer. benn bis ñew nak xawma hmm. ray sama dom juddu mel ni mu wara mel tawuma ma yon nak hmm. ma am sama nit don boromi nit nak man sama dom du sey ci promotion. nga de amul xalaatuma ah d' accord. promotion ay suba tabaski ak mooy yooyu. non non xalaatuma ko sax. moom nag la mu waxanteeg yéen. dara du ci am. li ma wax mooy am. ah waaye biir la aw biir a aw. ñun ñu ngi ñëw dem. ndax man foogoon naa ne. kaddu kër góor a ko yor ceinture góor a koy takk. lijjantil sa ceinture kër mais bu lijjanti ceinture ceinture bi fii benn la man mi maa koy takk. wuy ma yow nag xoolal ni ngay waxee sama kilifa. yow ñàkk nga kersa ni deewu kimi sa. ah oui man nak sama responsable fi parce que ni tey teggi ko ci li man ma doon utal sama jarbat soxna hmm. dokko ba mu ne ma hmm. ñew di utal buntu bo xamne jabaram day dem ngeen xagn mako ndax yow yoro kaddu keur gi man dégager na sama responsabilité ci bo boobu yow lay waxal waxuma la sax oustaz Abou Bilal la lay wax xam nga lu ma la bëgg xamal waaw soo demee sa jarbat bu la ya, eh, nexé sax bu fa né yow tasal sey bi fi nga tok man sama doom lamu la man juruma koy lamb gis nga man seen wax yi ngeen di wax ki nek sa wet di di di wax ak yu ken xamul para juma ben yoon ah! man jallu di mette auto wuy sor ginnaaw ko korne para yow dungu dungu rek nga mën a yow. kan nga naan dungu yow. soxna si du dungu de dunguru la. Eh, eh, eh. ah yow ngay leeral yow. dunguru nga. yow ah yow yaay leeral yow. may ma ma ñëw. fii maa ko seere waaye. d' accord xam nga yow lu ma la aaye nga ba ko. lu ma la sant nga def waaw. xas leen saaga leen ba mu tooy. ma saaga amu bi xas jërëjëf nga ma lu ma bëgg baax. lan yow lan jërëjëf eh, eh, wax leen. ko ma dama man nga naan dunguru maa ko wax. ah ma nee saaga seen waajur yéen ñëpp. waxal waxal dunguru saagal xool saagal. Ah. ma toj sa bopp bi ci zéro. Ah. ah waaw saagal. ah ma ma wax muy niroog nit ñu njëkk man nga naan nit ñu njëkk. benn ngeen. innamal axlaamu hmm. bin Wow, wow, Bila. Wow. Abu Bila. Lala. Abu man dama nurok nit ñu ñëk ña No wax ma rek bu ma nepp. ku la ko wax soxna so sig ma baye ni ma ma sagale. da nga lay mujj a saaga waaw yow ya, man numay saga. man avant ma dag di tek mu wax ma ni ma xoma ngay durok nit ñu ñëk ña sama moral yépp. ah xam nga nit ñu ñëkke dañu loon mengalé manam dañu mel ku ku ya ko ci ay

Covid, BX6 parfum multi-usage BX6 parfum bouillon jamono Bayeko Canada vous a offert un mouton un quartier